légier qui ont changé gis ngeen bërki démb benn ministre yegg na sax ba ci wax ne boo ma yónnee CV boo ci bindul ne Pastef nga bokk man CV boobu intéressé wu ma nga gis ne bërki démb génne nañu rapport buy wane ne junni ci nit ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett junni 1148 jël nañu leen defal leen ay contrat spéciaux yokk salaire yi doon yi ñu doon fayu ci état bi jëlee ko 114 milliards dolli ci yeneen ñaari milliards muy 116 milliards moom Ousmane Sonko mi doon wax ne réew mi dañ koy yor yor bu baax ci ñetti weer yi ñu génn moom primature 12 milliards la jëfandikoo moom Jomay ca présidence 34 milliards la jëfandikoo yéen ñii. la réew mi naqari ci yéen yow sénégalais biy jóg di taaba taaba yow mii gobar jaas yi yow mii toltolaan togg añ tibb ci reer yow la senegal jafe ci yow mais ñoom ñi nekk ci nguur gi non senegal jafewul ci ñëw senegal bu neex ñoom lañuy dund lañu doon gis ci Macky Sall ñuy gundaandaat yor alalu réew mi di ci def seen balaxal madda tey jii ñoom foofu la ñu toll donc yéen sénégalais yi fexe leen ngeen yeewu sama combat ça toujours été de combattre la politique politicienne malheureusement li ñu gis ak ñii fi nekk c'est pire ci politique politicienne dëgg lañu nekk li koy firndeel mooy jàpp yi ñuy jàpp nit ñi ana baa jaxate tëdd na ba génn imam Ndaw tëdd na ba génn commissaire na Keita tey jii pour li mu wax nga xam ne mënoon nga ne ko sax demal comme yëf bi amewul ni ñu ko waxee weddi ko mu dem taxaw weddiwaat ko waaye dañu koy jël dóor ci kaso bi xam nga lan lañ ci jublu pour gars yi ci ginnaaw pour gaa yi tiit xamu ne ne gaa yi pare nañ yàgg na su ma su ma doom bi dafa ñëw fekk su ma nekk sac bu noir bi ma teg ko mu ne ma mais papa j'ai vu que ce sac là est toujours là ça bouge pas ma ne ko oui c'est mon sac pour la prison ah non ñii fi ne ñii ñoo gën a nekk musiba Macky Sall parce que li Macky Sall doon seet kus néew ci dara ñii dañu rusul dara xam nga nit boo amul xam nga Macky Sall sax boo demoon ba gis ne Macky Sall def na lu mu warul def nga ne xaaral ma dem xooli Thierno Madani wala xaaral ma dem Louga ca Thierno Bachir wax ak moom mais ñii koy waxal amuñu sëriñ wéeruwuñu fenn kan ngay waxal la preuve la preuve la preuve on nous parle de Cheikh de Ousmane Dia de Omar Diagne mais Omar Diagne ku ne xam na la mu daan wax. ngeen baal ma sax ci li may tudd turam parce que pour man wax dëgg yàlla jarut jarut jarut tardé mais Omar Diagne li muy wax ci këru diine yi ñoom ña ko fal bàyyi ko ca poste ba mu nekk ba léegi man naa nekk ci benn société ma moom sama kër man jël la sama signature teg la fa nga jàkkaarloog samay kilifa naan ma ñii gëw leen duñ sama référence dootoo ko nettaleeti parce que booy ñëw suba doo dugg yow kon nag boo Cheikh Oumar Diagne xaw ma desee biir présidence de la République c'est parce que la muy wax dafa bokk ci seen projet c'est parce que la muy wax dafa bokk ci loolu ñu tuddee daawa la la Cheikh Oumar Diagne di wax dafa bokk ci nërmeel tarixe yi mais nag loolu moo leen di të loolu moom mooy të projet bi loolu moom mooy jaaxal projet bi parce que suñu mag yi diine yi dañu defar réew mi suñu magi diine yi dañu leen jox bopp suñu magi diine yi ñoom ñoo ñu gënal ñun suñu jëmm yi xam nga ñun dañuy xeex pour démocratie démocratie mooy ku ñëpp àndal mais ñun ci këri diine yi amul démocratie ñun ñoo naan sëñ bi kaay yaa ñuy jiite loolu amul la preuve tubaab wutalu ko nu tur sax dañuy wax démocratie wax royaume mais kaay yaa may jiite tubaab amalu ko tur kon ñun foofu lañ toll ngalla nañ ñu bàyyeeg suñu diine ngalla nañ ñu bàyyeeg suñu këru diine ñoom ñi gëmul dara na leen yàlla dimbaleeg seen ñàkkuk ngëm mais li wóor